Euh, parce que defe naa ne su ma juumul jamono 2009 wala 2010 nga si si sa benn rencontre da nga ma nuyule woon ak kii nga xam ne moo di Alpha Condé mu doon nit koo xam ne xamul naa ko waaye jëmu jooju da ma ne woon kii mooy futur président de la Guinée nekk na président. est-ce que tey jii ni muy doxalee ak li nga xam ne ñu ngi koy faat ay doomu aadama ci Guinée ak li nga xam ne ñu ngi koy tëj ay doomu aadama ci Guinée est que yow nekkoo si benn position bu xaw a gênant par rapport ak rapport yi nga am. non non non non c'est pas gênant c'est pas gênant parce <coughs> xam nga nit da ngay am maa ngi gërëm Pape Makhtar hmm. wax na seedeel na ma lu rafet hmm, jàpp naa ne sax xëy na hmm, meluma noonu mais euh, en tout cas maa ngi jéem a mel noonu saa su ne moo tax aussi yu bare yu ñuy wax dama koy dégg mais daf may damay damay sourire damay muuñ rek jàll parce que euh, quand dama weesu Euh, yii di xew léegi mënuma cee bokk dama ko weesu Alpha Condé sama mag la c'est grand frère ba ma ko xamee dafa yàgg mu nekkoon modèle parce que dafa diriger FEAN fédération des étudiants d'Afrique noire en France ah ñëw nekk euh, président wu Guinée lafa xew bind naa ci article mu ngi ci internet l'urgence de s'asseoir pour discuter Guinée la fa ci alal boo boolee alal ji ci Afrique yépp ci bii balance teg alali Guinée ca bee balance boo wattuwut alali Guinée dina wat balance ba ca des euh, loolu nag capitaliste yi ay tan lañu tan ñi ngi ñi ngi tong ci kaw garab yi di seetaan Guinée ñuy reyante suñu demee ba dara desatu fa ñu daal di wàcc nag exploité alalu Guinée ñoom dañu ne Alpha Condé dafa bëgg def troisième mandat Alpha Condé ne man constitution laa bëgg ñun sañu nu wax Guinée naka la war a demee mais sañ nañu ne Guinée yi toog leen ngeen waxtaan ngeen juboo dégg naa kii dem na fa euh, dem na fa tey wala war war na fa dem Ibn Cambas mooy représentant secrétaire des Nations Unies pour ñu toog waxtaan man na euh, wax naa ak président Alpha Condé wax naa ak moom mënumaa wax fii li ma lu ma wax ak moom mais xam naa ne daal euh, toog waxtaan moom kenn mënu mënut a ñàkk gis nga dialogue bii nuy wax xam nga nag aussi nit ku ñuul loolu it xaw naa nekk suñu problème tuuti gis nga tubaab yi boo demee fii cinquante ans prévoir nañu nu ñuy war a doxale nun fii ak déwén juróomi weer prévoiruñu ko li xew Mali Moussa traware euh, non Alpha euh, non ATT Amadou Toumani daf daan wax Mali mooy Sénégal oriental Sénégal mooy Mali occidental maanaam benn la la bëgg a wax te ñi ngi geer Mali waaye nun nu ngi mel ni la xew Mali ca weer wala xew ah, mi ngi mel ni la xew Mali ca weer wala xew te fii la xew ci sunu bunt Guinée lee fa xew nanu moytu nanu moytu man soo gisee ma sóobu ci li ma sóobu dama bëgg ëllëg ak si biir ñaanuma li may euh, tiit mu yegg si ci réew mi mais magum waxoon naa ko moo gën magum xamoon naa ko loolu daal euh, moo ma dugal ci mbir mi beneen actualité mënuñu ci bañ a wax muy euh, euh, Moustapha jaxate bi ñu dàq APR alors loolu euh, ci naka lañ koy jàngatee tey parce que ñu bëri euh, ñu ngi wax waxu euh, manque d'indépendance au sein manque de démocratie au sein des partis politiques yow est-ce que tey jii d'accord nga ci ci ci li ñuy wax manque de démocratie boobu noonu am au sein des partis parce que tey jii du APR rek lañ ko noté noté woon nañ ko peut-être ak PS noté nañ ko ak AFP ak PDS yeneen ak yeneen ñu bëri di jooy manque de démocratie boobu au sein des partis politiques oui effectivement Euh, mooy problème numéro un ci politique maanaam ci champ politique bi politique su doon tool dama naan sas wi ñu war a jëkk a lijjanti mooy démocratie ci biir parti parce que parti boo gis am na statu ak règlement intérieur mën nañu statut mooy constitution parti bi waaye bu dee ki jiite parti bi xamul sax li na ci statut parti moom li mu bëgg rekk lay def kooku soo ko falee président de la république constitution ba toppatoowul la ca ne li ko intéressé lay doxal ah, bon parallélisme alors bu ko defee combat yi ñu war a jëkk ne mooy à l'intérieur des partis politique euh, bon dañ naan ko ràcc jëmale ci sa kanam mu dëll c'est pour ça je veux pas évoqué yenn affaires yi mais daal defe naa ne c'est important Moussa Diakhaté nag moom euh, naka jekk même même temps wu Ablaye mhm. taxawal na wàccoo ak alternance euh, ak ak yeneen i nit bon man defe naa ne posture bu baax la nit da ngay am gis nga boo yemalewul ñàkk ak am doo am dara da ngay yemale ñàkk ak am taxaw ci principe te ñaare soo ko defee rek ci nga am dara donc euh, je crois que c'est un euh, réew mi daal ci tournant la ne maanaam oto buy daw ba yegsi ci euh, fu mu war a ma maam jàdde mhm. ndax boo continuer da ngay dafa am kàmb gu mag a mag a mag a mag boo tourné wut ni nga war a tourné rek du sotti foofu la et je crois que kenn ku ne sénégalais buy fi yeewoo ak ñi ne ci bitim réew tu es concerné. mais mais mais coordonnateur wala <laughs> wala honorable député euh, tey jii lan mooy responsabilité ñi nga xamante ni ñoom ñooy euh, ñooy jiite parti politique yi surtout que tey jii opposition bi dañuy naan opposition bi existeetul wala opposition de salon la da ngeen di toog di def ay conférence de presse wala da ngeen di toog di def ay mémorandum mais bu nekkee dem sur le terrain mooy li nga doon wax sànq rapport de force boobu tamit euh, yéen peut-être yéen a ko war a jiite mais lan moo tax boobu ba tey 2012 ba 2019 wala 2020 euh, rapport de force boobu chaque fois biy tourné di tourné en faveur de Macky Sall est-ce que tamit yéen am ngeen poids pour mën a contrer li nga xamante ne mooy Macky Sall. merci beaucoup xam nga <laughs> waxtaanu tey vraiment am solo parce que Pape Matar mi nee na sànq nekk nañu juróomi at daan def ay réunion di dem ci di waajal ay manifestation moom mën na ma seede tey fii ne depuis 2012 damay wax te damay bind ne bu nu organiser wut du nu sottal dara naka jekk ba euh, bi ñuy waajal élection bi te Ibnu Càmbaas ñëw fii ak délégation ñuy waxtaan ak acteur politiques yi am na koo xam ne euh, ci leader politique yi gën a ràññeeku la bokk ñu toog nii war a rencontrer Ibnu Càmbaas ñuy waxtaan mu ne ma yow de lii lépp saa su ne dama ko daan wax ma ne ko waaw waaye kenn mësuma déglu affaire bi amul compliqué wut ñi fi toog li ñuy def ñi ngi ci jàpp naa ne maa ngi ñaan yàlla xiir leen ci lii nu dugg muy waxtaan mu sotti ba réew mi ànd ak dal ñu teg ko fiñ ko war a teg mais su loolu nekkut suñu organiser wut mais c'est une dictature qui va exister puis le le le Macky pourra faire trois trois mandats quatre mandats cinq mandats voilà on n'aura que nos en tout cas les populations <laughs> Cheikh Oumar Talla tu voulais dire quelque chose. waaw mais le mot la fin man la si man. Uh-huh. Euh, je crois que on a fait le de la question mais surtout ñëwoon si revenir un peu sur euh, la corruption bi nga xam ni wax na ko. Uh-huh. Euh, Birahim Seck jot nañ la yaa ngi promet di nga ñëw pour ñu wax ci wàllu guerre ak corruption parce que sénégalais yi foofu la ñuy la ñuy xaar. Uh-huh. et on a besoin tey. Euh, corruption bi dafa dem ba ancré ci sunu ci sunu société c'est-à-dire même pour dem mairie wut kayitu juddu deux ans nga war a fay jàpp nga ne il faut nga neexale ñaar téeméer parce que mhm. lenteur administrative bi mu ngi joué su ñuy wax corruption on parle de chauffeur bi lem na mille francs joxe mais yooyu sax bi gën a bon te gën a yées mooy dañ ko institutionnaliser ba ci ci li ngànk nguur gi parce que bu ñu demee ba véritablement baykat bi ji gi mu waroon a jot mu des ci ñi nga xamante ni ñoom ñooy xaw ma ay opérateur lañ ay ñoom euh, Moustapha Cissé ak benn ministre bi xaw ma jëkkëram ak ay borom këram gis nga alalu réew mi. Mhm. ñu koy sàmm muy xam mais marché yi nga xamante ni mu ngi am compalante gi am. corruption gu mag gi mooy góom goo xamante dafa mel ni góomu robaale ci Sénégal te loolu am na solo euh, bu ñu amee yeneen jotaay yu gën a yaatu ñu gën cee mun a waxtaane pour conscientiser sax sénégalais parce que corruption fu mu am y a deux y a un corrupteur et un corrompu mm-hmm. et c'est-à-dire nag tey toll nañ foo xamante ni ce que ça fait perdre mm-hmm. ci li nga xam ne moo jëm ci suñu wàllu koom parce que corruption fu mu sax dakk fa mm-hmm. koom-koom réew moom moom jarul de mën naa naax saay waaw xam nga corruption li tax mu am euh, li de croix wax léegi xam nga nit ñi Euh, nañ dul déglu borom xam-xam yi euh, yàlla dafa wax ci alxuraan la juste balance la juste balance day leen mesurer la juste mhm. balance loolu rek doy na mhm. ko même julli di commerce avant yàlla di ko wax bu fekkee ci alxuraan lañ wax Socrate waxoon mu ne ce ne sont pas les richesses qui donnent la vertu au contraire c'est de la vertu que proviennent toutes les richesses Merci. aussi bien celles valables pour les individus que les états ñu ne philosophe la day wax nañ ko teg de côté ki nga xam ne nii économiste la nekk prix Nobel de l'économiste Amartya Sen mu ne c'est la vertu qui renforce l'économie moo tax su ma déggee oustaz su waxee économie indi mentalité indi arxuraan c'est-à-dire que jàng boobu dafa jot Sénégal xam nga lan la parce que ay technocrate yoo xam ne dañoo génnee faculté mais la faculté des sciences économiques man moo ma màkk ay ñoom Moustapha Kassé dem nañ retraite bu yàgg depuis combien d'années cette faculté elle est là ñaata docteur en économie ñoo nekk fi et pourtant on xam nga lan moo tax muy am corruption parce que on a séparé mhm. la vertu et de l'économie mhm. gis nga vertu jukko bu rafet maandu njub peuple bu mu jub njub yàlla dafay wax ci alxuraan mu ne bàyyi leen di wax raa naa tey wax onzurna du loolu la wax bàyyi leen di wax yàlla may ma may ma te di wax yàlla xool ma mais ku dugg nag ci ay bureau di defalante di signé ay facture de facturation doo wax yàlla xool ma kon wax ji wax ji on a beau être des jàng livre yëpp génne ci toutes les facultés mbir mi mooy ñu delloo mbir mi ci yàlla te yàlla du concept yàlla jukko la Pape Makhtar c'est un problème de comportement parce que oui avant ñuy ñëw ci ci Mounirou c'est un problème de comportement parce que quoi qu'on dise ci ñun ñi population bi la commencé waaw mais c'est un problème